2021 mbokku téléspectateur Equivox TV nuyu nañ leen yéen ñi nga xam ne rek yéen a safoo télé bii di Equivox TV nee leen saa su nekk rek nii lay demee ma ci ànd ak Babacar lépp loo xam ne rek jógee na ci arène bi maanaam làmb ji dinañ toog fii ci plateau bi daal leen ko faram fàccal Babacar nuyu naa la l'incontournable. <laughs> maa ngi lay fay maa ngi lay fay mais loolu moom loolu moom gis na trop soxna Ami. da nga koy gàddu. non bàyyil ma nekk taalibe rek. moo gën a wóor quoi yaa ma gën a xam non fii moom maa fi taalibe maa topp si ginnaaw. yaa sëñ non non non non non waa waaw mais bàyyi ma nekk taalibe rek nañ nekk ay taalibe rek. Mm, kon ñu nekk waaw nañ ànd nekk ay taalibe rek waaw yàlla baax na. Mm, <laughs> waaw di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom di ko ñaanal bépp doomu aadama fu mu mën si àddina bi rek mm-hmm. waaw. voilà chers téléspectateurs bu baaxee rek ñu dem seetaani li nga xam ne moo di revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 2 février 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk fa mu xëy ñëw daal maanaam ci mbirum art martiaux bi nga xam ne ni maanaam boo ko boole daal muy ba yëglikaay tey ci gëstoob nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé daal foofu la xëy tey dugal fa xaalimaam maanaam def fa mbirum luñtu wala boog enquête comme ni ko tubaab di waxe li nga xam ne nii daal ñëw na tey di MMA bëgg nag wër arène bi ndombo yëglikaay bi ñëw na ci nee boo xoolee ci atum 2012 daal ca la nga xam ne nii moom moo di mbirum MMA ba daal di commencé dugg ci réew mi nag maanaam ci mbirum clandestin maanaam daal jaaruñu ci buntu kër ba dañoo bëtt maanaam kër ga jaar ca ginnaaw kër ga ñàkk ba dugg ci réew mi maanaam noonu la ko yëg likaay bi gisa tey gis na ñoo xam ne tamit boo bëggee dégg dëgg moom lu jiin njaaka ci mbir ma daa mel ni ñoom ñooy njaak muy Rocky Balboa ak Bombardier ñi nga xam ne daa mel ni mbir yi ci ñoom lañ ko njëkk a fi nga xam ne nii ci lu sénégalais yi a jàpp muy MMA waaye itam yebuñu ca atum 2019 mi nga xam ne ci génne ka nga xam ne ab révélation la ca xam ne daal bàyyees na ko ca xel muy rëg-rëg ak combat boo xam ne def na ko ca fa nga xam ne moo di ndakaaru daal di ko gañe ca na mu ko neexee ñu ne déet ne waay mu continuer ca ba tey ca 2020 gañewaat ca beneen combat boo xam ne mu ngi ko gañee fa nga xam ne moo di Singapour loola sax mu nga am ci atum 2021 bi nga xam ne ci la nu nekk yëglikaay bi di su lamb daal moo xëy tey toppal ñu mbir moomu nga xam ne moo di MMA waaye yemu ca de ka nga xam ne tamit moo di Sétamou Lansar moom tamit ñu gis ko ca MMA ba mu génn ca ñaari sorties yoo xam ne daal dafa mel ni ca la ko defee yoo xam ne ne yépp daal ay ndam la ca xëy ñëw jële ko ca yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ne ki noonu am na keneen koo xam ne tamit mu nga cay wax muy Bertrand amusu moom daal pionnier la ko yëglikaay bi tudde ci wàllum MMA ci réew ma nga xam ne moom moo di France waaye jàpp na ni kii rëg-rëg ba ci Bombardier daal ay débutant lañ ay yoo xam ne ci mbirum MMA dañ ciy doog a door ci ñoo xam ne daal ñu doy doy waar lañu ci Bertrand moom gis-gis booba la am keneen koo xam ne tamit mu nga ca UFC di fa jongante di Juan di espagnol boo xam ne daan na bëre fii ci réew mi moom tamit xëy na tey ñëw ci moom mu ngi ca MMA ba jàpp na ne li nga xam ne daal moom mooy combat MMA yi moom combattant MMA yi soo bëggee dégg-dégg la ñuy gañe ci xaaj daal ne taxu ko takku noonu lool lool yëglikaay bi daal tey foofu la xëy ñëw tey gëral nu ko duggal ñu ca mbirum MMA ba keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom tey muy ki nga xam ne moom moo di Papa Sow ak écurie ba nga xam ne sanc na ko depuis daaw maanaam mu amum ak tren yëglikaay bi xëy na tey nag ñëw séq moom wax papa nag moom la mu xamle daal nee na aw bàkkoom maanaam devisam daal mooy lan yëngal gësam ka nga xam ne ni moom mook moom ñoo bokkoon écrit muy lacrosse yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ci koo xam ne daal yaakaar la woon fa nga xam ne moo di ci écurie waaye daal soo bëggee dégg dëgg moom yëg likaay bi na day ah moom daal ay mbiram daal yëg likaay ba xëy na tey ñëw ci moom la lagros ak xaar ga nga xam ne ñu ngi ko ko doon xaar ca Fass muy nekkoon koo xam ne espoir bu wóor a wóor la keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii moom maanaam ñu nga fa nga xam ne moo di ca mbuur muy waa làmb ja am na koo xam ne nii wala boog ñu nga xëy di ca wax ña nekk ca làmbi mbuur ja boo bëggee dégg moom mbirum wiklo ba ñëw nañ di ca wax ka nga xam ne moo di Moussa Diop jiite Los Production moom la mu xam ne nee mbirum mbirum huis clos moom manta nekk loolu nekk état bi daal du cee dugal la nga xam ne moom moo di loxoom yëglikaay bi ba tey am na keneen koo xam ne wax na ca muy Aziz Ba moom nag moom mooy président maanaam say nekk ca Mbuur moom itam daal daa mel ni ki daal lu mel ni ki noonu xaw na ko junj keneen koo xam ne wax na ca muy Pape Sylla ma nga xam ne moom moo jiite écurie ba Bombardier nekk muy Mbuur Bombardier Pape daal la ma gis mooy bu ñu jaawale maanaam football ak làmb bokkul ci wàllum huis loolu la wax moom moom daal noonu la gisee moo tax mu wax ko fa nga xam ne ba tey moo mbirum week la jooje bu ñu demee ca record moom kan fay fekk mooy Mamadou Mendy moom nag moom mooy mbir la moo xam ne jëru sax di waxtaane ndax du nekkul loo xam ne lu mën a nekk la Mamadou Mendy daal gis-gis boobu la am tey ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di record voilà mu nekkoon rek li nga xam ne moo di revue des titres Babacar ñu daal di ñoom rek ci journal suñu làmb ñu daal di xëyatee rek li nga xam xam moo di MMA arts dañuy dóor di mbëkk voilà ñu daal di ñun daal muy sport boo xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy pionniers yi muy Rocky Balboa ak Bombardier ñoo ci jiitu ñeneen ñi ñoo topp ci muy rëg-rëg ak ki nga xam ne rek moo di Siteu waaw waaw loolu daal tey enquête la Abdoulaye Dembélé xëy def ñu koy nuyu la tout puissant sunu làmb suma xarit waa tey dugg na ci loo xam ne defe naa itam jar na jàngat muy MMA parce que boo xoolee depuis 2012 comme ni mu ko waxee ñëw na ci réew mi bi muy ñëw nag jaarul ci yoon mi maanaam clandestinement la fi duggee muy loo xam ne tamit bi mu dugg see d'ici quelque temps gis nañ ku mel ni Bombardier Rocky Balboa njëkk ci jongante di ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom lañ ci boole woon ci Suisse Bombardier gagné Rocky Balboa Bombardier boobu tamit gisaat nañ ko mu jongante waat si Angleterre gagné Siteu ñëw jongante si moom tamit gagné ba rëg-rëg niñ ko ci gisee mu nekk loo xam ne actuellement fi mu nekk nii sénégalais yépp koy waxtaane ñëpp a koy commencé bàyyi xel ah muy loo xam ne nag ah sport la comme ni ñu ko waxee boo xam ne comme ni ñu ko waxee moom métti na xam naa ne ndax dinga nga gis ay loxo yu jóg ay tànk dina jóg muy sport boo xam ne daal xam naa ne ah euh, li li ci am solo daal mooy wala li ma si mën a wax mooy ah mën nañ ko pratiquer pour man te déjà commencé nañ koy pratiquer mais lépp rek nañu fexe ba daal bépp doomu sénégalais bu koy pratiquer bu ne ah nañu fexe ba yow la tax ak balaa ngi cay dem la nga war a matale na nga ko matale ci jàng ko xe ci man ko parce que itam dafa dangereux man ni ma ko gisee lu dangereux la ah lu waar parce que nit ki tëdd nga tiim di kanamam di dóor ay <laughs> coup de di rokkas doo bàyyi waaw loolu ami lu doy waar la ah, euh, ki nga xam ne moom mooy Bertrand tamit li mu wax Bertrand Amousou moom jàpp na muy Bombardier wala muy Reug Reug mhm. kenn amagu ci maanaam ay débutant lañ ci kii waa effectivement man na nekk ah, parce que xëy na ñoom ñiy wax moom mi wax loolu xëy na am na lu mu ci xam ba tax mu wax ko parce que yaakaar naa ne ñoom yàggaguñ ci par rapport ak tey MMA ba mu commencé am ba tey ñoom boo xoolee ku mel ni Reug daaw lañ ko gis mu jongante ci benn combat ak bii mu si jongante waat bëri démb muy deuxième combat am Bombardier tamit yaakaar naa ñaar la si jonganteegu ba ci Siteu noonu kon defe naa ne moom tamit xëy na loolu mu wax ci côté technique ak fi ñu ci palmarès ak fi ñu ci war a ci ay niveau moo tax muy wax mais lu ci mënte xew daal xawaan tamit gis na ne ci xaalis ñi nekk UFC wala combattant MMA yi maanaam li ñu gagné ci xaalis waaw muy loo xam ne daal ak lu bon a xew daal xam naa kon ku ciy dugg daal yow la nga cay wuri la nga cay seeti yàlla na nga ko ca gis waaye daal nekk na sport boo xam ne fi mu nii moom daa mel ni mu ngi commencé intéressé sénégalais yi ndax li tax mooy xam nga làmb daa nekk mbir moo xam ne ci wàllum média communication amut lu gën a gaaw làmb moo tax ba ci mbër yi duggee donte MMA amoon na mais bañ ci gisee bombardier gis ci sitta gis ci rëg-rëg ci la commencé nag def nii nag enflammé wu di ubbeeku nit ñi di ko bàyyi xel combat MMA yi ni muy méttee euh, mbëru sénégalais yi di jógee fii di dem di bëre ji nga yaakaar ne tamit nekkul xaalis bee bëri moo tax ñu koy kii ah parce que non am nañ ci dara parce que kenn du nag bëri wu ci ba pare mbëri di dem di ko defi te mu métti yaakaaroon ah moom waaw na moom xam nga moom pratiquant la mu ngi actuellement mu ngi ci yëngutu muy xawaan nekkoon na mbër daan bëri fii Sénégal di espagnol moom mu ngi UFC di fa jongante mais ñun keroog ki jël mu nga xam moom mooy Pape Demba kan moom jàpp na ne ah, boo duggee UFC yenn niveau yi xaalis ci am rom rom na kase làmb waaw lool nag kon dinañu jaaxal waaye yaakaar naa ne bombar ji mais fi mu toll day si carrière ak rëg-rëg si taag ñoom rokki ñi demuñu di ca xeex ci maali foro rek déedéet mag buy naan ndox mu tàng suukar sa tax ami waaye ba tey rek dinaa delsi ci euh, Bertrand bi ne Bombardier ak Reug Reug ay débutant lañ ak ñoom ne instant bi ko fa ak ni ñuy xeexee nga yaakaar ni ñi ay débutant lañ ah waaw mën nañ parce que instant yi gisuma ñu leen ëpp doole ci mbir mi ñu ngi ciy dem macha allah waaw non xam nga débutant pour man fi mu koy waxee mooy nit ki mën nga ñëw ci sport fekk ña fa fekk nga dolloog ñoom doole mais du tere nga nekk débutant parce que mën nga nekk débutant ci par rapport ak foofu xëy bu bu man su ma jàppee ay waxam xëy na foofu laa koy jàppee maanaam ñee mën naam ñu ñu ñañ fa fekk parce que ñoom bañ cay dugg am na ñu fa fekk te ñooñu ba tey am ne di combat kon yaakaar naa ne man pour man buy wax débutant ci côté expérience bi yàggaay bi ak tamit ci côté niveau bi nga xam ne foofu ngay jongante ak ci xaalis beeg yooyu pour man côté boobu lay waxee quoi. xam naa daal doole yu ba tey rek ma dem kii le le le kii de Fass. Papa koy waxatee Papa waaw bi nekkoon fas waaw moom daal fi nekk nii nee na yëngal gësam mooy devise am. mooy a gis. mu ngi mu ngi que dafa sancee kër yi jógee Fass depuis daaw. am na at boo xoolee devise am na yëngal gësam la ah muy jàmbaar Wrestling Academy ñu koy nuyu di nuy père ba seen président mu yëkkati boo xam ne daaw lañ ko sanc yàlla dogal na am na combat ñoom Franc ñoom ñëpp ñoo nga mu yëkkati boo xam ne daal. ah ñu ngi leen di séntu fa sori par rapport ak ñu fa gis. Mhm. Mhm. mais avant saison bi di tëj mais est am na ay combat parce que man dama ko gëj a gis en boo xoolee gëj na bëree. Ah, waaw Ama Baldé la mujjee bëreel Ama daanoon ko. Mhm. depuis boobu ba tey gisaatuñ ko mu wàcc si làmb ji bëri quoi. kon nag papa yëngalal yëngal gësam bi. gën gën gën koo yëngal. <laughs> voilà ñu ki nga xam ne moo di euh, Lac Rose nekkoon nag euh, espoiru Fass moom fi mu nekk nii dañoo gis ne daal dafay chuter en fait dafa disjoncté. waaw lool de am na parce que Lac Rose fi ko waa Fass doon xaar ak tey fi mu wàcc wax dëgg yàlla am na différence loolu nag contre performance la mhm. day am ci sport li ko faral di indi nag bokkoon na ci ay blessures yu ko ay jàppal bàyyi yooyu su amee ci espoir des fois mën na yàq lu bëri ci yoonam mais wax dëgg kuñ doon séntu la mhm. mais bon <coughs> loolu de koy dagg da am na bu arrangé ci biir waaw mooy waa mbuur yi bii la mais ma ma demaat ci Lagros sax ma ma dellusiwaat ci Lagros. waaw Lagros ami comme lool nga wax rek dèjà espoir la woon boo xam. Ah, ami waaw wax nga dëgg Lagros espoir la boo xam ne waa Fass dañ ko doon Fass xaar fu sori mhm. mais nag wax dëgg yàlla ku ne gis na ne at yi ñu génne defet yi mu teglante ak jàppal bàyyil bokkul woon xëy na fi koy équipe bi doon séentu mais lool mën nañ ko layele parce que boo xoolee am na mat su fi mbër yi amoon ay at ci ginnaaw. daf ci jëloon benn blessure blessure booba nag dafa mel ni moom moo ko sonaloon ci biir carrière ba lu baree baree bari mu ñàkk ko ci ay combat yoo xam ne sax day ñëw ah da ngay xam ne kii tey vraiment parewul ci côté santé parce que blessure tànk ci athlète vraiment la mu yàq ci moom moo bëri mais xëy na ci niñ ko gisaate li ñu dégg ci moom amit mu ngi commencé di liggéey parce que faju na ba wér ci li ñu dégg ci moom mu ngi commencé di liggéey kon nañ ko xaar parce que xale la boo xam ne ñàkkagul dara ci làmba ah. bien sûr waaw voilà noonu la demee quoi ba tey rek euh, ñu ñëwaat ci combat yi nga xam ne rek moo di huis clos dina am wala du am ñi nga xam ne nag ñoo di acteur mbuur yi maanaam ñi nga ko huis loo xam ne mënta nekk maanaam lu ñu bañ la daal waaw parce que tamit ah huis clos daal néew mu mënta nekk waaye xam naa daal li bu mënee nekk itam bu keroogee dana laaj la la mu laaj dana bëri ci ay accompagnement mm-hmm. parce que tamit làmb dafa am différence bu bëri ak ay football ak ay basket ak yooyu waa xam nga yaa ngi dégg néew ma nag mënta am lu war a mën a am la waaye loo ci mën a dégg buy am itam nañu teg condition yi wala boog la koy wër encadré ko ba tax su amee kenn du ca génn di ci am ay jafe bu ñu jógee ci suñu làmb ñu daal di dem ci journal record ki nga xam ne moo di Mamadou Mendy di directeur technique régional bu Fatick daal di dellusiwaat ak ñoom ci li nga xam ne moo di huis clos bi nee na moom daal c'est impossible ci lutte simple bi nee na. waaw waaw ah mooy li ma waxoon sànq rek. Mhm. man de du ma ne c'est impossible mënta na waaye buy nekk itam la mu laaj laa wax la ma waxoon fee la lay waxaat rek. Mhm. nañ ko accompagner ci condition buy tax mu mën a ne. Mhm. mais buñ ko tax mu mën sa bopp du mën a nekk. parce que tamit euh, làmb comme li ma la wax rek dafa am différence bu bare bare ak yeneen sport yi nekk Sénégal parce que lu nekk am na ay réalité am mhm. waaw moom daal mi ngi noonu voilà Babacar mhm. daal dinañ leen daal képp xibaar yi mhm. Babacar da nga dajji bu bees dajji la yoon paquet tey ban nga dajji li dafa comme ban waaw merci beaucoup merci yow yow la yow la wala mais yow laay jàppale non bi son benn booy bu ñuy wax Cheikh Lambaay nekk Petersen di jaaykat moo ma ko jox ma koy nuyu bu baax a baax Cheikh Lambaye di doomu Fisel Mbaadaan wala Mbaadaan sax di nuyu bépp jaaykat bu nekk Petersen rek ñoom Babacar bu Mour Lama ñoom ah, xam nga ñoom Omar ñoom gars yi nekk foofu yëpp daal maa ngi nuyu waa Petersen yëpp yëpp yëpp ak ñoom Jib Seen waaw booy xam nga foofu moom dama bëri ay soppe quoi parce que man dama xam nga dama nekk jaaykat quoi non dama jaar ci marché bi jaay xam nga ñëpp di samay waaw non ndaanaan bu ndaw rek noon ndaanaan bu ndaw rek xam nga ndaanaan moom bàyyi ñu nekk bàyyi ñu nekk yu ndaw yi rek ne ci ginnaaw rek ñu nekk taali bi waaw santaar yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan fi yàlla def jàmm xam nga ñaan corona bi ah ni ñu sonale jaaxal nu yàlla ko yàlla nañ ko fi yàlla jëlale ndax moom mooy moom mooy moom mooy borom kun fa yàkkoon daal di balu ñëpp ak fu ci waay mën a nekk rek saa yoo déggee ne wax nañ lu la blessé rek ñu ngi lay balu ak wala ñu def ko parce que nit moo matul kon moo tax ñu ngi balu ñëpp ak rek di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu encore une fois di la jaajëfal ami di nuyu Gomis mi newoon ci film bi mhm. yàgg maar ci montage bi mook hélas di nuyu la DC Aline Badara Diouf waaye tamit di nuyu ki nga xam ne bu ñu Equivox moo tax muy kilifa gu mag gi nekk ci ginnaaw nga xam ne li ñuy def yëpp bu ngeen ci gisee lu ci rafet rek mhm. jàpp leen ne moom la nangu nag ko tudd turam ñu ngi ko ñaanal yàlla rek saa yu xëyee yàlla na yàlla di gën a yokk kattanam barke yonent bi waaye tamit di leen wax ñu préparé wu ah. mhm. sargal rëg-rëg dafay am Fallou Ndiaye fay tëgg lam bi simple ak waaw defe naa daal ci ci ci ci date boobu la su ma bañee juum xaaral parce que njuum te wóorul waaye daal ci date yooyu du ko sori waaw ci février bi la daal gam bi daal lay amee waaw ak sargal moo get loolu lépp ci biir lay nekkaal Ndiaye production fay ah non yow fu may dem nga nekk sama hmm. ginnaaw loolu du dara la soxla kii ah oui attention Jackson daanu